Euh, yàlla defal nañu li nga xam ne moom lañu bëggoon euh, mooy ñu am majorité à l'Assemblée nationale ñu gagné li nga xam ne moo ëpp ci nombre de députés yi. Mm-hmm. ñu am quatre-vingt-deux députés euh, benn citoyen sénégalais bu ñuy wax Pape Diop ñëpp xam ko ci taxawaayam ràññee ko ci bëgg dëkk bi ne moom ñun lay àndal ñu am quatre-vingt-trois députés. Mm-hmm. 83 députés nak boko amé sur 165 députés yow ya am majorité ci sante yalla di ci sante population yi bu baax ci sen taxaway ak sen euh, détermination ci choix yi nga xamné def nañ ko di sante aussi population yi nga xam dañu voter fenen parce que démocratie moom moo tëddee noonu aussi euh, li ñuy ñaan moy gagné gañaay yu yaatu yu rafet parce que loolu lañ tàmmoon di am d'ailleurs mom lañ ñu 2012 mom lañ ñu en 2017 mais nag yàlla moom aussi mi nga xam ne mooy joxe ak population yi lu ñu la jox da nga war a sant yàlla sant population yi xam ne lii lañ la jox nga jël ko. Mhm. donc xeebu ñu ko. xam nañu ne ñi topp ci suñu ginnaaw juste ñu ngi am 83 ñoom ñu ngi am 53. Mhm. donc daanaka rawal nañ leen 30 députés. ñeneen ñi ñu ngi am ñun 83 ñoom ñu am 27 donc raw nañ leen lu ëpp euh, presque cinquante députés. Mhm. ça veut dire quand même bu dee ñaari wujje yi ku ci nekk. rawee nañ la lu mat lu mu tuuti tuuti trente député wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla xam ne lu jaadu la bu daay département ñoo ëpp département yu gagné sur la liste nationale aussi bi ñu appliqué caution bi ñun ñoo ëppale sur la liste nationale donc loolu day wane ne wax dëgg nga ñaay mu rafet la ñaam foo dem nag ci groupe dana am ay jafe-jafe sunu groupe aussi am na jafe-jafe comme ni nga ko waxee mhm. soxna Aminata Touré ñëpp xam ko ci Sénégal nekkoon premier ministre grâce au président Macky Sall mhm. le ministre de la justice avant grâce au président Macky et à ses compétences le conseil économique et social grâce au président Macky Ces ses compétences personne ne peut dénier. Nous avons bu am aussi aussi nga sa ambition ak sa passion di nga peut-être nañ éviter parce que li tax ne éviter moy biñu les 82 députés de la majorité présidentielle Benno Bokoyaka, avec le président Benno Bokoyaka, 82 tour à tour député Bounek, en tout cas ña fa parce que peut-être qu'il y a deux ou trois absences excusées ña fa de 16 h à presque 2 h du matin ku nekk jël parole da nga président ba gannaaw gereme santé. yalla, minga sant mola mi nga xam président Raphaël Lou bi da man li ci des ci loxo président la des jox nañ ko carte blanche que ku nous tànn ci ñun pour duggal le comme candidat président l'Assemblée nationale wala mu duggal na ci bureau ñun kooku la jappalé jàppale lañuy voter mu un engagement c'est un engagement devant le président mhm. comme d'ailleurs avons une conférence des présidents défait lors de la confection des listes parce que ci confection liste bi aussi carte blanche a été donnée par les, par les leaders de la coalition Benno Bokoyakar au président de la, de la coalition pour me confectionner liste donc donc ñun la même méthode la def président ne loolu rafetlu na nous dinañu jox rendez-vous avons fait un séminaire à Sali du 11 du 10 au 11 on était à Sali, nous avons les députés les 82 députés il y a le député Pape Diop qui était absent pour des raisons magales, parce que fait des tout ñun ñëpp ñu dafa la journée du 12 septembre waxtaan waat encore ci nan la ñuy taxawee ci journée 12 septembre bi defaale formation capacitation député yi ci ay budget ci ay euh, euh, parlement nan lay demee règlement intérieur bi moo ci nekk et cetera et ñun ñëpp encore à la fin des travaux ñu jël engagement sur l'honneur ak résolution boo xam ne dañu ne ñun ñëpp d'accordaat nañu ci sunu biir. Mhm. suba ku président wax ne yow yaay nekk président assemblée nationale.

donc man duma ci mën a àddu parce que loolu euh, jàpp naa ne man tuuti naa ci pour wax ci parce que loo xam ne fekke woo ko aussi sa aqulaay taala mënoo ci wax mhm. on prend acte de sa déclaration mhm. mais li ma xam mooy man day su doon man dig nañ ma loolu ma toog ci biir salle ñu wax ma loolu danaa fàttali ne waxoon nga ma ne man ngay jox président assemblée nationale mhm. bu ma demee aussi ci séminaire toog fa ak su may nawle daa leen ah yéen ngi may wax loo lii ak di ma ko signaloo de na président mhm. mais en tout cas aucune réserve particulière n'a été notée elle a participé à tous nos travaux sans aucune réserve engagement yi collectivement on a pris ces engagements man loolu laa mën a garantir te xew nag si diggante moom ak président ak lii xew après mënu ma ko mënu ko garantir parce que man li ma fekke laa mën a wax. alors li lii mënoo ci addu parce que fekke woo ko nangul nañu la ko mais li nga xamante ne àddu nga ci euh, mooy yow ak ñi nga àndal ngeen bëgg que poste député wam mu renoncé ci tey ci base lan. mais li li tax mooy ku ko dégg xam ne jël na ay distance avec le président de Benno Bokk Yaakaar jël na ay distance avec le parti parce que mooy bokkatuñu ligne politique. bokkatuñu ay orientation ah bokkatul si ñun parce que bu ñu résumé rek la ñu a résumé ma jàpp ne man de su doon man la laa wax de euh, ma jël engagement yooyu d' abord damay respecter engagement bi jusqu'au bout parce que man jël engagement bi ne ku ñu jël danaa ko danaa ko danaa ko voteel donc euh, maintenant bu amul ba nga xam ne léegi nekk nañu si ay euh, mu ngi mu ngi nekk ci ay gite ngas maanaam

donc boo demee ba loolu nag nekk si pour man yenu maanaa te te nek courage politique mooy mandat boobu nga xam ne c'est un mandat collectif bu la jox ñu jox la ko ci liste ak coalition da nga ko war jël ko bàyyi kook nit ñi waaye doo jël mandat bi di ko xeexee ñi nga xam ne ñoo la ko jox ci ci yéene bu rafet man pour man loolu laa gis mhm. donc moo ñu ne ñun li ñu gis mooy effectivement euh, su dee la demee te dëgër na ci loolu wax dëgg yàlla li rafet te jaadu te ngor nangu ko xalaat bu rafet aussi nangu ko mooy doo dem si mbir ñu jox la arme pour nga xeex pour tirer balle yi de l'autre côté nga jël arme di ko retourner contre ñi nga xam ne ñoo la ñoo la armée jox la jox la armée yi donc man pour man foofu laa waxee ne su ma doon moom dama koy damay delloo mandat bi mhm. te am na exemple président Macky Sall kenn dàq ko PDS bi mu demee ba am ay problème de ligne disciplinaire avec le parti ak ay orientation mais dafa dem ne man damay créer suma parti damay dem wëri Sénégal waxat Sénégalais yi ak sénégalaises yi mais d'ores et déjà balaa may def dara ci activité politique mandat bi ma amoon ci PDS ci député dama leen koy delloo. mandat bi ma amoon ci PDS ci conseil municipal dama leen koy delloo. mandat bi ma amoon ci PDS en tant que maire dama leen koy delloo. loolu mooy dëgg. Mhm. mais munoo nag téye mbiri mbiri nit.

c'est ça la majorité majorité aussi l'ol. maintenant est-ce qu'on a la majorité qualifiée non mais quand même on a la majorité on a 82 députés de la coalition Benno bokoyakar yakar L'ol que je ba léegi rawee nañu ñi nga 30 ba léegi rawee 50 et quelques députés. mais mais mais maintenant maintenant juridiquement elle n'existe pas mais à l'Assemblée nationale. mais mais cette intercoalition cette inter intercoalition y a koy wax man xam nga li am Assemblée nationale. Hmm. amul intercoalition. Il y a trois groupes parlementaires un groupe parlementaire qu'on appelle Benno Bokoyaka, composé de 83 députés au jour où je vous parle en attendant bien sûr les formalités mhm. un groupe parlementaire qui s'appelle Yewi, qui a 53 députés et un groupe parlementaire qui s'appelle Liberté Démocratie Changement qui a 27 députés Lolo l'Assemblée Assemblée nationale Benen aspect aussi insister Moi, que majorité limi amé l'Assemblée solo moy dara assemblée nationale ñu war ko majorité bi mu amé importance c'était déjà mettre en place le bureau de l'assemblée nationale cette majorité a été une majorité dynamique qui nous a permis de mettre en place le bureau de l'assemblée nationale suba lan mo fay ñëwaat budget mo fay ñëw suba lan mo fay ay projets ou des propositions la ñoo fay ñëw bu ñuy sénégalais bu nek nek député à l'assemblée nationale en fonction de li comme débat dans l'enceinte de l'hémicycle, mais je pense que vous allez vous déterminer. Pas que avons une majorité 82 pour que l'Union, nous ñu nangam nangam imposer c'est-à-dire que même ñun bu ñuy voter dañuy voter en mettant en avant l'intérêt du pays. parce que loolu lañ ma sa hein. donc ñun nag dañu ne dañu nekk ay députés de rupture dañu nekk ay députés yoo xam ne mais jot a xew assemblée nationale wanewul moo tax moo tax man le fait d'avoir 82 83 84 ça me ça me ça ne m'exacerbe pas ça me ça me c'est pas la préoccupation man li ma gëm mooy boo leen xasee nekk majorité li fu ñëw parce que budget Sénégal xanaa dinañ ko voter député yi dinañ ko d'accord voter donc buñ koy voté dañ koy teg ci table ñëpp jotandoo ko xam ne budget bi lii la fi mu war a jëm lan la war indi comme solution parce que budget bi du dara dul un instrument politique qui qui qui traduit un peu les aspirations des populations. Euh, est-ce que aujourd'hui vous avez les moyens. ngeen déchoir Aminata Touré maanaam dindi li nga xamné mom moy euh, député bi mu nekk ndax.